jërë ngeen jëf ci teewlu gi saa su ne ñuy ànd ak yéen ci Xibaar TV li nga xam ne rek moo gën a fës ci internet bi people buzz dañ koy door rek Malick gannaaw ki nga xamante ne rek moom moo di Pape Makhtar Sarr ba mu génnee internet yi di ko lëns ci internet bi rek mu daal di am fierté ci village am natal nag ki nga xamante ne moom moo di Malick Thiandoum nag jamono gi nag mi ngi jël ay kàddu rek ci Pape Makhtar Sarr ne ko reste fën waaye itam reste sénégalais donc t'étais pas comme ça wala naam meloo woon nii mu nekk ay kàddu yoo xamante ni moom Malick Thiandoum mi ngi koy yëkkati jëmale ko ci l'international rek ki nga xamante ni rek moom moo di Pape Makhtar Sarr ñu naan choco choco la am du choco choco nag jéggi na dayoo moom joueur bi nga xamante ni moom moo di Diao Baldé Keita jamono gi nag ñu daal di koy gis mu daal di ñuul kuk ku nekk nag naggan soo xamul fa nga jëm da ngay daal di dellu foofee nga xam ne rek nga jóge woon yow Diao Baldé Keita ndaxte amoon na fi ay problème ak fiancé boobee nga xam ne rek a ñoom ñaax nag ñoo daan nekk ba sax sëy am seen diggante ñëpp nag nag jamono gi di ko joxoñ baaraam tuumaal ci li nga xamante ni rek moom moo di bilee carrière am ñuul gi mu ñuul nag nee nañ ko reste sénégalais yow itam Diawa Baldé Keita Coumba Gawlo Seck ngeen di gis image yu sur Xibaar TV HD mu daal di jaale ki nga xamante ni rek moo di yaayu Aziz Dabala yëkkati fa ay kàddu ngërëm ak cant waaye itam am cofeel lool gis yaayu Aziz Dabala pour ñëw rek soulager ko si tristesse bi nga xamante ni rek mi ngi koy dund suñu yaay ji ba tax na sax Coumba Gawlo daal di àgg di yéene bi jëndal ki xamante ne mooy sëru Aziz Dabala télé boobee nga xamante ne Aziz waroon na ko ko defar mu nekk na nag xibaar bu tiis boo xamante ne rek foofee nga xamante ne rek ci Pikine tey xol yëpp daal di tooy gis Kumba Gawlo rek ni muy saafonte ki nga xamante ni moo di yaayu Aziz dabalaa ba tey ci le cas de Nabou ñi naan génn na ñi naan génnul waaye ki nga xamante ni rek moom moo di waaw Walfadjri mu di Pape Ndiaye ñu ngi joxe yile information jëmale ci yile rumeur rawatina rek moom Nabou Leye mandat de dépôt boobee nga xamante ne rek daal nañ ko koy def nag mu fas yéene nag nekk ab diir boo xamante ne rek enquête bi dafay fas yéene di wéy ba keroog rek ñu ciy fas yéene am lu leer nag mu nekk nag mbir boo xamante ne rek actualité la fi nga xamante ne rek di Sénégal mënuñoo xëy te duñ ci wax ñu ñuy xamal ne famille Waly Gano Fallou bu Boubacar Kano Gano mu di Waly gone gi nekkoon nag ki nga xamante ne moo di Aziz Dabala mu mel rek jamono gi mbokkam yi dañoo daal di mer ah, ci ah, li nga xamante ne rek mbir mi noonu la daal di demee waaye itam ñu ñuy daal di xamal ne nii nañ mi ngi mel ni rek Aziz Dabala moo daal di génn àdduna du ñu wax benn yoon ci ki nga xamante ne mooy Wally récemment lañ ko gis ah, ci clip bi mujj ki nga xamante ne moom moo di Demba Guissé mu nekk mbir boo xamante ne rek famille yi nag ñi ngi yëg ci ay kàddu nag naam ndimbal lam du ndimbal ak lu ci mën ci am rek itam nañu xam ne nee nañu Wally doom la mu nekk nag mbir bu critique bo xamanteni rek li ci mënti judd ak li ci mënti rot kenn xamul anu mu tollu ba tax na jamono gi la actualité people buzz mënuñu ko wax te duñu wax Aziz Dabala mënuñu ko wax te kenn du wax Nabou Leye waaye itam kenn du faté ben yoon ki nga xamanteni mom moom wali motax Wally moo la def délégation andak yaayam dem jalé Aziz Dabala ki nga xamanteni rek moo ay way juróom ak ay sëram ak ay frèram nga di gis noni en image Aïda di sëru Aziz Dabala bi nga xamanteni ne rek daal dinay joy bu futtu itam ak ki nga xamanteni mooy yaayu Aziz Dabala ci kàddu yooyu nga xamante ne Coumba Gawlo yëkkati na ko fa moom Coumba Gawlo mu taxaw défendre Aziz Dabala ci ñenn ñi nga xamante ne dañ doon wax naan Aziz Dabala ab borom ñaari tur yi la mu yëkkati ci ay kàddu leeral yu ama am solo ngeen koy gis noonu. ñëpp di ko xaarati muy ñëpp di ko xaarandi pour ay kàddu yu leer moom le roi du mbalax Youssou jigéen Ndour ci li nga xamante ne rek xew na foofee nga xamante ne ca télévision Futur Média ñëpp bëgg ci am ay leeral waaye itam ñëpp bëgg xam li xam ci les licenciements yi nga xamante ne rek am na ba tax na sax ñi ngi naan nguur ga nguur gi na mu doon doxe doxetul noonu ba tax na rek jamono gi rek ñëpp ñenn gi joxañ baaraam tuuma bi les rawatina rek jamono gi nee nañ gàcce gàcce gi nga xamante ne rek nga xamante ne mooy le première ministre de Ousmane Sonko mi ngi koy daal di ci li nga xamante ne rek ci mim réew ak li ci mën ci am rek mu mel ne rek mbir yi jégg na daya foofee nga xamante ne rek moom moo di ca télévision Futurs Médias Pod yéege ci ay kaddu jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo di Naboulaye nee na mës naa liggéey ak Naboulaye Pod mu di série boobee nga xamante ne ay emprise la ah, nee na nag du ko waxal dara lu ñaaw lenn rek la xam ci moom waaye itam da koy ah, sant ko gërëm ndaxte nee na nit ku baax la li ñuy wax lii lépp nag nee na ko gëmu ko benn yoon ba tey Naboulaye toujours reste serein ci li nga xamante ne rek xew na ci réew mi ah, fi muy daal di taxaw ak kàddu yi muy yëge ci lenn la defuma faatuma rayuma Aziz Dabala Naboulaye kàddu yooyu rek lay yëkkati mu nekk nag xamante ne rek réew mi ñëpp ngi koy waxtaanee ku ci mel ni Pape Moussa Sonko moom danseur bi nga xamante ne rek yàgg naa ànd ak daba Dabala itam mi ngi yëkkati ay kàddu ne Nabou ni mu mel ak Aziz Dabala xel sax xalaatul li ni mel nag mu nekk nag ñoo xamante ni jege nañ ko lool ba tax na ku ci nekk rek mi ngi ciy yéeye ko yàbb yi ñoom ñëpp benn kàddu bi ñuy wax rek moom moo di laale Nabou takk takkiwut ak lu ci mën ci am rek li ñuy sàkku nee nañ leen rek muy mbir mi mu daal di leer ñëpp xam ne Nabou Leye deful li ni mel ndaxte kat doon na mbir bu jéggi xamantene ne mënuñoo xëy saa su ne fi nga xamante ne moo di Sénégal te kenn du wax ci jëmm ji nga xamante ne moom moo di Aziz Dabala rawatina li nga xamante ne moom lañ ko def ak wali mu nekk mbir bu critique boo xamante ne ñëpp ñi ngi ci yéeye ka bi rawatina artiste yi ku ci mel ni Pape Diouf gis nañ tey Kumba gawla waaye itam ñëpp ngi xaarandi ak ki nga xamante ne rek moom moo di Wally Ballago Seck foofee nga xamante ne ca Pikine ca yaayu Aziz Dabala jamono gi naka ñuy wax ak yéen ñu ngi wax ne ci ay fan yu néew moom Wally doomi coon ak jaaga naka dina fa daal di dem nag yóbbu ab njaalam maanaam itam wane cofeel gi nga xam ne rek amoon na ko ci ki nga xamante ne rek moo di Aziz Dabala ci cofeel googu Wally Ballago Seck mi ngi publier rek di wax ni relation ak Akon relation yu bien la ndaxte kat buñ demee ba naan Wally ak Akon dañuy préparer clip wala am na loo xam ne amu ci nag mu nekk ab fake boo xam ne mi ngi circuler si internet bi Reva TV HD di leen ko xamal Wally Seck nag nee na moom Akon frère am la xaritam la donc am nañu relation yu bien am nañ ay relation yu particulier nañuy bàyyi fu amul coow moom Wally Ballago Seck ñu fay dafay faral di def coow wala leneen li ni ba tax ne sax Wally daal di nay génn tontu ñenn ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo daal di nekk ci internet bi. pour jeexalal ba tey ki nga xamante ne moo di Demba Guissé nag ñu ne du bàyyi benn yoon internet yi nga xam ne rek dañuy wax wala yàq leen ci deram rawatina rek ci bile lii mu mel ne rek jamono gi ñoo wax dara ci réew mi rawatina nag li nga xamante ne rek moom moo jëm ci bile génn àdduna Aziz Dabala ba tax na ñenn ci juriste yi ñu ngi ciy yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci li nga xamante ne parmi les sept présumés ku ci nekk di ci yëy di ci yàbbi di ci wax ay kàddu yoo xamante ne nag jamono gi li ñuy wax rek waaye a ngi war ki nga xamante ne moom moo di maam Mbaye Niang ah, gannaaw nag bi ñu ubbee li nga xamante ne rek moom moo di billet dossier Prodac nag ci yoonu ah, dik nag daal di jël billet dossier moom Mame Mbaye li ñuy daal di xam la rek mi ngi foofee nga xamante ne moom moo di ca diwaanu Canada lañ ñuy daal di xamal ak lu ci mën ci am Mame Mbaye jamono gi réew mi ñëpp ngi koy xaarandi ci li ni ba tax na rek lépp loo xamante ne rek am na ci moom Mame Mbaye jamono gi nag moom moo di actualité phare au Sénégal rawatina rek billet dossier nga xam ne rek daal di nañ koy teg ci table dig nag mu nekk dossier boo xamante ne ñëpp lan moo taxoon Ousmane Sonko jàllul ci yile élection ndax dañ koy ubbiwaat yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne rek da cee daal samp ba tax na ak lu ci mën ci am rek ñëpp ngi xaaral ni moo di Sénégal dina am ak du am ak lu ci mën ci am jàpp leen ni Mame Mbaye Niang jamono gi sur Xibaar TV HD mu leen jox bi les nouvelles moom mu ngi foofee nga xamante ne ci diwaanu Canada ba tax na rek ak li nga xamante ne rek moom moo di bile dossier ñëpp ngi koy xaarandi lenn leer ci ñi nga xamante ne naam leer Word Genome.